njariñu tool bu ànd garab ci diwaanu Sahel. ci vidéo bi bëgg nañ leen wan yenn ci xare yi am solo te am ndam yu baykat yi mën def ci seen suufu tool ngir yokk seen koom su fekkee ni lakk nañu ñax meeg garab yi baykat yi ak boroom xam-xam yi nemmeeku nañu ni suuf si du aaru ci naaj bi ngelaw li ak ndox mi te di yàqu wante su fekkee ni bàyyi nañu garab yi fi ñu nekk te xob yi ñu daggat leen te bàyyi leen ñu sëy ci kaw suuf si daañu yokk te aar suuf si te tooy tooy bi te jox ay ferñent yeneen bay ak aar suuf si ci mu bañ naaw loolu lañuy tuddee xarala bu aju ci lalum ñax boole ay garab ak i gàncax gu ndaw gi ci biir tool bi mooy mbay mu ànd garab mbay mu ànd garab lu am njariñ la ci fànn yu bari may leen ñu ñu wan leen yenn wantaas ci dugal garab ci biir tool yi garab yi ànd ak gàncax gu ndaw gi mën nañoo yokk taw yi àll yi amul garab aki i gàncax yu ndaw gi ñooy gën a wow te taw yi néew garab yee gàncax gi dañuy jur meññeef yu bari yu ñu mën jëfandikoo ci njaay wala dund gi garab yi dañuy jox ker nit ñi ak jur gi ci jamonoy tàngoor garab yi dañuy jox ñaay ka ci jamonoy tàngoor fekk mu ñàkk mën nañoo jëmbat garab yi ak gàncax gi ñu nekk kaaraange mbay mi ci jur gi ak tool yi ci naawum suuf seeg ndox mi wal yenn gàncax yi ak i garab yi mën nañoo téye benn ferjant bu am solo ci màggaayub gàncax gi di azote te it mu mën jox azote googu yeneen mbay. am na ay xeetu garab yu ràññeeku te mën baax ci diwaanu Sahel ñu wan leen ko. gàncaxu Gliricidia yu ñu jëmbat ci diggante mbay mi dina yokk rendement yi ci ngóob ma. lu ñu taamu teg ay rangu garab penku jëm sawu te topp doxum jant bi ci bés bi ndax mu am leeraay bu doy ci mbay mi nekk ci ñaari diggante yi acacia albidia gàncaxu légumineuse buy joxe azote la xobam dina ruus ci jamonoy nawet ngir mbay mi mën am naaj bu doy ay xobam ak meññeefam dañuy nekk xontu jur gi ak lalub ñax ci jamonoy noor acacia acacia na nekk nag gàncaxu légumineuse guy joxe azote suuf si ak mbay mi te mën déggu bekkoor bu yàgg wanteet mën nañu ko jëfandikoo ngir am dàkkaande di meññeef bu am solo pliostigma Pliostigma reticulatum nekk na gàncaxu légumineuse buy wane njariñam ci nekk diggante mbayum mel na dugub suuna mën nañoo jëfandikoo ay meññeefam ni xont ak gàncax yu jëm ci paj mi mën nañu ko jëfandikoo ci defarum ñag ndax jur gi du mën yàq mbay mi gàncaxu cosaan bi di giyara giyara sénégalensis ci jamonoy noor gàncax yu mel ni géera dañuy manq ndox mi nekk ci biir suuf si ak seeni reen yu sore yi di ko bàyyi ci kaw suuf si ngir mbay mi mën nañu daggate xobu garab yu ndaw yi te lal leen ngir muur suuf si te loolu dina yokk mbindam ak nangu tem ngir am góob mu baax baykat yi am jaar-jaar yu yàgg ak boroom xam-xam yi digle nañu yenn doxalin mbay yu baax digle nañu ñu ferat gàncax gi lu jiitu laate jamonoy nawet ak beneen ci diggam su fekkee ni mu sëq lu bare lu am solo la ñu aar garab yi ci jur gi diirub ñaar wala ñetti at yu njëkk yi njëmbatum garab ak gàncax gu ndaw gi bokk ci xeetub légumineuse ci biir tool yi lu baax la ci suuf si ak rendement mbay mi ndax mën nañoo jàpp ferjentub azote liggéey bu baax mooy jëmbat leen ci ruq yi mel ni misaal rëddub tànku nag ci gàllankooru maral mi dañu war di xalaat ay pexe yu baax ngir jox ndox gàncax gi jëlub xeer yi fas nañu ni baax nañu lool te yomb teg ngir dajale ndoxum taw bi te yokk ci lu ndoy ngir mbay meek garab yi kanaalu xeer yi dañuy wàññi ndox mi nu muy dawee te ñu teg leen ci lu tool yi loolu dafay tekki ni ndox mi dafay xeeleeku jóge ci mbartalu tund bi wàcc jëm ci suuf ba lalu xeer bi kawe fanweeri centimètre wàññi ni muy dawee ngir natt fi lalu xeer yooyu war tegoo ci mbartal bi mën nañoo jëfandikoo jumtukaay bu jafewul mu nekk benn cadre bu bindoo a am lu mel ni weñub montoor gi tàngaase ngir jëfandikoo jumtukaay boobu mel ni a teg leen benn tànk bi ci ubbi beneen bi ba weñub montoor boobu nekk ci digg bi loolu mooy wane ni ñaari tànk yépp yem ci benn kawewaay ci diggante ñaari tànk yi la rëdd wërngal bi nekk ci rëdd boobu lañuy teg xeer yi lii di saay beneen xarala bu baax ci mbay mi du dara lu dul ay pax yu ndaw ngir dégg ndoxum taw bi ngir wóoral amum garab bi lu baax la defar benn pépinière moom am na bërëb bu mu jagleel defarum compost lii daal nekk na benn misaal ci mbayum gàncax bu ànd ak garab ci diwaanu Sahel buy may baykat yi xéewal ju bare